ferme. Bismillah. Ferme. Ferme. Ferme. Ferme. Thank you. bàyyi rek damay ko sadeel rek. tuuti ba. tuuti ba bari. Mm-hmm. te dénk la na ñëw nii la. waaw waaw yow ñu teg ko. na ñëw na ñëw. encore. place place ñëwal ñëwal. c'est bon jërëjëf. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. Oh, nangu ca kaw nangu ca kaw Mbacke. waaw léegi nag na na fay tëj ko na fay tëj ko ba suba xasidati sax xasaidal kiram leer na nañ wali tuqudu abadan xeeral maram haddiyati mujilatun la malik kana mun naa zahan wa axzahul malik leer na nañ bu daan teral alquranul karim nan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xabli kunta tabibi waaw moom it ñu war ko defal ne xasaay ñu war ko teral ne xasaay ba noppi sa yaara bi jógee ci kii ko fi nekkal ki nga xamante ni bii fu muy binde muy wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu koy tuddee almuntaqa ci lay gën a ci bu koy waaye na bu koy waaye almuntaqa bu koy waaye yonent bi almuntaqa ci lay gën a ci mu koy waaye almustafa hmm. wala mu koy waaye almujtaba wala mu koy waaye almuqtafa moo tax ñun ñëpp ñu war a gën a laxasaay wax wax ko Serigne Youssouf Anathé Dieng Youssouf ñun ñëpp war naa ko sàlla Serigne Mountakha bu ko neexoon nit na ñëpp tënku ci Hizbut Tarqiyyah waaye lu tax di ko loolu la war a seet ndax Hizbut Tarqiyyah mooy terminus ma daliyal xaqul mu génnul xaqa wa bil xiyaaral ulama araqa da ngay nekk savant bu noppi soo ko soxla mu doon sa escalier. waaw waaw moo tax yéen yéen a ngi terminus. waaw moo tax nag euh, savant yi ku koy seet ay savant moom ku tedd ji Mbàkke Buso yéen soo ko jàll waaw kuy seet savant yi madda li yàlla xaqul mu binul xaqa vérité absolue moom na ko yàlla jox te savant yi bu ñu demee ba nekk savant nag la koy soog a soxla mu doon seen ascenseur loolu moo tax waaye lan moo tax Serigne Mountakha ak ni mu demee yéen te ñëpp xam ko yoonu murid depuis Cheikh Abdoulahi Al Ahad radiyallahu anhu ni Serigne Mountakha demee yéen bu fekkonte ne dafa doon koo xam ne daaloon rek lay nekk du nekk du dem zaalu kon dina am lu mu feeñal ci yéen luy nuru parparloo ay nag Zaloun la dëkk. Zaloun daf fiy ñëw rek. waaw Zaloun ñun ñoo dëkk Zaloun. waaye boo xoolee Zaloun 700 ak 4 dafa sore. fi mu toll dina nekk ak ñun ba noppi. mu mel ni dafa nekk ak ñun fekk nekkut ak ñu fekk ma nga Zaloun. ak jëmb jee nekk ak ñun rek. ci yërmande ci Zaloun. loolu moo tax faw rek murid yi dellu siwaat seen xel. waaw ñu dellu si waat seen kàddu loolu looloo tax kat fi ñu toll nii dara man mii soldaar bi may doxalee ni may doxalee. waaw nag Serigne Moustapha Bachir a anhu moo ma tudd woon jëwriñ ñaan ndax limousine ba ma njëkk am ci limousine moom laa ko yónni woon hmm. booba Serigne Cheikh taawam mi ngi dund moo ko yóbbu woon hmm. ci la woon jëwriñ ñaan hmm. kon lu ma feeñal lu mu luy nuru ak taalibe wala njàngale rek ci jëwri ñaat googu lay teg ca waaw ga ca waaw ga lañ koy dugal ndax ñoom kurus lañu benn kër boo jàpp jàpp na ñëpp Sëriñ Muntaxa nag moom li ma leen wax rek lil mën taqal tub ma yasur ruhu bila nihayati xidmati taqabbala wala moo tax nag eh, eh, lil mën taqal tub ma نهايتي وخدمتي تقبلا بالمنتقى بما يسره بلا moo tax lii ci li koy bëggal la ndax sayaara bi man bi ma nee alxadimiya ñetti waxtu lañ ci teg mu woo Moussa yin setam ni ko demal yóbbul ko ko ni ko maa ko jàpp lii ci liggéey loolu nag message la mm-hmm. communication la mi ngi mel ni rek ñaar fukki xar ak benn yo ma Serigne Saliou defaloon ndékk communication loolu waral Hizbul Haq moo tax ñoom maanaam dañuy wax ci jëf waaw dañuy bàyyi fee théorie ñëw ci action geste waaw bu ko defee nag mu laaj interprétation buri li wàcc ci Maliki Sabila waxi ko tedd kee nodd du tax ma dagg lu may wax ci ko tedd ndax benn la rek ñoo bokk fi jógee ndax lii mi ne la fi ma fuusi bu ma déggee allahu akbar moom moo ne allahu akbaru min xaqdi wa min amali hmm. wa min maqaali fa kulli taaba fillah kon moo ngi ci nodd bamba day na sat mane bu leen fàtte ne képp leen nodd gi man nangu naa ni ba doy na sëkk làq waaye doy na sëkk wéeruwaay waaye discipline dafa am yar bu ngeen léegi bi nuy wax xisbu tarxiya lan wax mu ngo léegi nag faw ngeen comprendre diggante chariatu ak xaqiqatu ak tarbiya barab bu nekk la mu moom tey sax xuma lu tax ngeen toog man sax laa bëggoon a xam Baye Samba nee na mi ngi ñu fi daal. kaay kaay. yow mi yow def naa dama laa ameel lu bari.